descendez eh, oh, hey wàcc leen taxaw leen benn par benn taxawal ni ana borom oto bi taxawal noonu yow wàccal taxawal fi yow da nga def yow. waaw wàccal. quatre. cinq. ay taxawal ni yow. ay ay ay foo jëm taxawal ni. loolu પૂજો طاوله مني بنفر بنفر قال تدور هاي هاي قاعد تعوف يوم رغد في يوم هلا قولوا ويا مني ما في عندهم مو بالطلبه